sunu bës TV nit ki tey jilee ci conférence de presse bi ñu doon amal ñoom ña nga xamante ni ñoo fare ca Pastef nekk foofale ci Touba ci njiital kii di Serigne Cheikh Thioro Mbacké moom nag Cheikh Thioro Mbacké ay kàddu yu doy waar la daal di yëkkati ay révélation la daal di def ca atum deux mille vingt et gannaaw rek réew mi ba mu tàngee lool moom Serigne Mountakha dafa rekk daal di yebal ñaari ndaw kenn mu yebal ko ci président Sall ki ci des mu daal di ko yebalee ci Ousmane Sonko nee na nag ka nga xamante ni moom lañ yebale ci président Sall moom laata moo agsi moom président Sall woo naka ay yoon yoon ngir rekk daal di yàkkamte mu daal di agsi gannaaw naka ba mu agsee bay tolloo ko buntu Dakar ci la ko rek ay moto daal di dara daal di ko yóbbu ci geneen kër goo xamante ni ba léegi kenn xamul gan kër la moom Cheikh Thioro Mbacké moo def yooyee révélation nee na nag gannaaw ba nga xamante ni toog nañu ñoom kilifa yi lee Marème fay Sall ba mu dikkee dafa wax ni nguur gi kët yàlla ñu ko joxoon yàlla daal dina koy jeexal moom Marème Faye Sall moo yëkkati yooyee Macky dem na ba xam le ni sax xam ngeen ni waaye m d ñoom dañoo woote woon manifestation bu rëy ñu bëree bëri nag dañu doon ragal rek Ousmane Sonko dem ci manifestation boobile te moom dem na sax ba àgg di wax ni bu fekkoon ni Ousmane Sonko dem na ci manifestation boobile kon nag boobaa réew mi ñii di militaires yi mën nañ koo jël te sax président Sall moom préparé woon na rek ngir daal di génn réew mi yooyee révélation kii di Cheikh Thioro Mbacké moo ko joxe ba tey moom mi Touba yebaloon foofule ca m bu mu ba mu demee ba àgg foofu ngir waxtaan ak ñoom quatre-vingt-dix pour cent ca ñoom waa M2D dañoo bañ loolee nga xamante ni la xalif général mi ngi ko doon sàkku ci ñoom waaye nak kii di Ousmane Sonko kenn du moom ndaxte kat nee na Ousmane Sonko moo leen wax ni Serigne Mountakha duñu ñaan waaye nag ñu muy digal ñiy def ñoo fi nekk kon naka la mu ñu digal dañ koy def waaye nag Ousmane Sonko mi la jaaree ko cib mémorandum ngir rek di sàkku ci xalif général des Mourides teg sa ñoom waaye tamit daal di seen ko njaboot waaye tamit kii di Karim ak Khalifa Sall ñu daal di mën a bokk ci élection gannaaw bi leen nag ndaw loolu lee daal di sant gannaaw ba mu santee gërëm ci njaboot ga nga xamante ni ñoo fi teewoon daal di leen di xamal ni kat Serigne Mountakha daal di na yebal kenn ku nekk ci yéen pour ndaw rek daal di leen di ñaan ka nga xamante ni nag may na ko la muy ñaan ko kii lee dana sant daal di gërëm waaye nag ka nga xamante ni lànkal na ko la muy ñaan moom mi la def ci rek dafay rek daal di téye boppam ca moom gannaaw bi leen nag moom Cheikh Thioro Mbacké daal di na xam le ni ci màggal 2022 gannaaw ba ñu àndoon doon ziyaare ji rek Serigne Mountakha Serigne Mountakha lam leen wax ci kàddu mooy dama leen ameel bor te dinaa leen ko fay mu nekk ay révélation yoo xamante ni kii di Cheikh Thioro Mbacké daal dina koy def ni tey jile ba ñuy amal seen ko jano ak askan wi. Sunubuzz TV.